yu yar yi boo gis ne ñu koy wax nit kooku ñu yar xale yar yi man xale joobal yi moom mooy parce que xale yar yi gaa ñoo leen jël jël yi di fay ci ñoom leen kontaan bu baax daanaka ñu leen toppatoo ñu ko toppatoo doomu aadama gaa yi ñu ko ci xam nga ci ñoom jëm ci mer xam nga leen toppatoo di sant leen ñu naan leen jox woon ci seet da ngay jël ay saabu di teg gis nga bu toll nii ñu ngi nii

ça varie entre 3500 jusqu'à am na ñu jaay 4000 mais ñun 3500 ba 3800 ñuy jaayaat ngay jaay 3500 waaw ñoo jaay par benn yaa ngi jaay 3700 3800. Poulé mu nekk nit ku baax dañuy jaay lu yomb wante prix nag nee na moom fu muy jógee dakaar ci la seere moo tax. cher na wante nag euh, nu mu demee la feebar bi fi jaar moo indi lii yëpp te bu ko fi yàlla jëlee. bu soobee yàlla ak bi lépp dina yomb ñun daal sunu sunu xar yi muy li fi am mooy mooy sunu xaru pël-pël yi amul xaru laadum amul xaru bali bali mooy pël-pël yi ak xaru naar yi daal ñoo ñoo fi am am na ay xaru xaru xaru xaru yeew yu baax nag am nafi fi xaru tubaabeer yu baax nag am na fi macha allah prix prix nag ñoo ngi ñoo ngi varié cinquante cinquante mille ba jëm cinq cent mille boo ñu indee cinquante mille daal mun nga am xar ba jëm cinq cent waaw.

te yow jur na sa xel du daal. day ba baax day. waaw loolu tamit dana am ñoo xam ne loolu moo tax ñu jóge sa bàyyi yàq parce que dañuy sawar parce que boo yoree sa xaalis rek ñu sàcc nga financé sa doon ah sàcc lépp amul benn bénéfice boo ci ñàkk parce que yaa ngi dégg leen parce que maa ngi dégg boo xam ne nii doo ko teg doo ko jox mu lekk doo ko jox mu naan loolu moo waral ñu yor xam ne maa ngi dégg boo xam ne yaa koy dundal effectivement dëgg la parce que période bi dafa nekk loo xam ne euh, ñu yor bagage yi am na si ñoo xam ne bon ci lañ ci profito quoi comme ni ngay demee ñu naan soble yokku na wala pombiteer yokku na parce que ci événement am la nekk nit ki nag li nga xam ne da koo yor stego stego ko ba heure bi euh, xëy na lii la doon xaar moo taxoon mu denc ko boo xoolee ki nga xam ne dafa récolté depuis euh, décembre janvier te boobu ba léegi mu ngi ko téye kon euh, dañuy wax ne instant bi la doon xaar su ko génnee nag donc du bokk ak prix ba mu doon jaay loolu c'est c'est tout à fait normal ñun nag jaaykat comme ni ñu ko waxee rek à chaque fois dañ li ngay yow sa marge nga am su fekkee da jënd téeméer da ngay teg sa marge su fekkee da ngaa jënd 10 000 da ngay teg sa marge kon seeraay bi ak yombaay bi du dépendre ci ñun ñi nga xam ne ñoo jaay parce que comme li ñu wax rek marché moom dafa nekk loo xam ne euh, boo jaayee lu cher sa morom jaay lu yomb jaay bala donc à chaque fois il faut essayer de gagner le maximum de de kii quoi de client waaw faire fidéliser ta aussi tamit sa clientèle tamit bon loolu tamit li koy indi mooy fexe ba li ngay jaay am yërmande waaw bañ a teg lu bëri. voilà loolu la mais vraiment bu dul loolu bagage bon mu ngi am peut-être que yokku bi mooy tax yokku bi aussi am na leen loo xam ne avant tabaski bi la woon comme lu mel ne comme torto wala mboq mboq boo xoolee depuis koor ga ba léegi dafa manqué. ba léegi nag gisaguñu kii ya xaw ma nag gars yi dañuy ko ba ba am xam nit ñu bëri amuñ fu ñu denc xar loolu moo tax nit ñu bari amuñ fu ñu def fu ñu def seen seen bu ñu jënd amuñ fu ñu fu ñu ko def. ragal naa gars yi dinañ ñëw daal yaakaar naa ko waaw mais ba léegi daal gisaguñ kenn fii Thiès amul fooraay ñoo ngi laañ laaj lancé message ci ministre le le ministre de l'élevage le président de la maison des éleveurs le gouverneur de la région de Thiès le préfet du département de Thiès ñëpp daañu ni le maire de la commune de de Zone Nord ndax waa waa waa éleveurs yi am nañu espace 13 hectares boo jëmee zone 13 hectares boo boo euh, zone base bi boo jëmee. côté polytechnique am na fi 13 hectares yoo xam ne éleveurs yi ñoo ko moom ñoo ngi ñaan le ministre de l' élevage mu dimbali ngir yàlla waa Thiès am am fooraay amuñu fooraay loolu mooy suñu jafe-jafe amuñu fooraay